محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل wasalaatu wasalaamu attaamaani l akmalaani ala sayidina wa xabibina wa nabiyina muhammadin alqaa'il ana akramu lanbiyaahi wala faqra ana sayidu waladi aadama wala faqra ana sayidi alawalina walaxirina wala faqra alqaa'il innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq wa ala alihi wa asxaabihi wa xadiimihi atayibiin ataahiriin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki jullit yi tedd yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ci baatu nuyoo yu tedd yooyu te borom bi subhaanahu wa boole ñu ko muy baat yi nga xamante ni ëmb na lépp lu baax waaye it daq lépp loo xamante ni ab safaan la ginnaaw loolu it ñu ngi leen di ziyaar bu baax ci bis bu tedd bi muy yowma jumaatil mubaarak di bis boo xamante ni moo gën ci bis yi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mboolem lim ci dëxëñ ci aw yiw mu dajee lañu ci ak moom te jàppandal ñu it mboolem lim ci santaane ci ak jaamu yàlla mu yombalal ñu ko ban man koo def di leen ndokkeel xit bu baax ci weer wu tedd wii ñu nekk muy rabiul awwal di weeru gàmmu di leen ndokkeel xit ci guddi gu tedd gi ñu génnoon mooy laylatu mawlidi nabi di guddi goo xamante ni gu tedd la ñoo ngi ñaan mboolem jaamu yàlla yin ci def ak ñaan yin ci def yàlla na ko yàlla nangu bu ko nangoo it yàlla na ko def ndoxam jàmm sotti ko ci suñum réew waaye sotti ko it ci mboolem réew yi jullit yi ñu wër yépp wa ma zalika ala bi aziz yàlla mën na ko yàlla na ko def mbokk yi ndax guddi googu xam ngeen ne guddi la gu tedd guddi la gu màgg guddi la gu wormaal guddi la gu bari yiw bari njariñ comme niñ ko fekkee ci mbindam sëriñ bi radiyallahu anhu mawliduhu muazzamun mubaarakun muhtaramun taasimuhu yanxatimu ala sawi bi guddi la goo xamante ni gu màgg la màgg lool ci suñ borom subhaanahu wa màgg lool ci ay ngëneel ak yiw wi nga xamante ni moom la làmbool waaye nekk guddi goo xamante ni gu ñu warmaal la gu ñu warmaal la ca boroom bi subhaanahu wa ndax yàlla suñu borom mi bind jaam yépp yemalewut guddi googu ak beneen guddi li waral loolu nag ngir na guddi gi boroom guddi gi te mooy ki ca feeñ moo toll noonu ndax dañuy wax ci waxu arab ne alzamaanu wal makaanu yatasharrafaani bi sharafi ahlihima jamono ak barab ñoom ñaar ñi ngi ñi ngi baaxee ci darajey ka fa feeñ wala ka fa nekk guddi yi guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane ci jamono li tax mu gën guddi yëpp mooy ki gën ñépp moo ci gane si jamono léeg-léeg xéet nga dégg ñu ne Màkka wala Madina wala beneen dëkk moo gën yeneen dëkk yi loolu du jëmmi kër yaag wala mbedd yi waaye jëmmi ka fa nekk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy wax loolu te guddi giñ weesu nag day guddi koo xamante ni ki gën ñëpp euh, ki nga xamante ni borom bi subhaanahu wa da ko tànn lépp mu gën a mat doomu aadama yi ci bind gën leen mat ci jikko gën leen mat lépp moo ci feeñ comme niñ ko fekkee ci mbindam sëriñ bi radiyallahu anhu wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan zahara wal mislu xattu lam yura walan yura fi siyami yonent bi salallaahu alayhi wa sallam loo lamb rek moo ko gën a mat mbindeef ci lu baax sëriñ bi nag ci bayit wi dafay junj ñeent ñeenti mbir yu am solo bi ci jiitu mooy bindam ba bu tedd ba moom sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy jukkoom ja jukkoom ju tedd ja moom sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy wax ne ku mel ni moom lam yuraa mosuñ koo gis ci ñi weesu woon ñetteel ba mooy walan yuraa duñ ko gisati ci ñiy ñëw mbokk mu nekk wax joo xamante ni ju am solo la ngir ne dafa bëri lool lim làmboo moo tax mën nañ na sax suñu waxtaanu tey li muy bari bari ci bayit wi rek lañ ko tënk wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan zahara wal mislu xattu lam yura walan yura fi siyami loolu mooy waxtaanu tey bi te bindam bu mat ba bi ko borom bi subhaanahu jagleloon nga xam ne ci moom lañ ko njëkk gisee ci moom lañ ko mujj gisee moom sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy jukkoom ju mat ja jukkoom ju rëy ja jukkoom ju tedd ja loolu mooy suñu tomb waxtaan loolu nag ngir waxtaanee tomb bu njëkk bi te mooy bindam ba foofu dinañ ñëw tuuti ci ak ndawam ba nim nekkee ak waxamaaneem beneen tomb bi mooy jukkoom ji dinañ indi ay jukko yoo xamante ni sallallahu alayhi wa sallam da ko melawoon te ab jullit wara jël melo yooyu melowoo ko lu mel nii mën a jéggale gi nekkoon ci moom sallallahu alayhi wa ci jamono yoo xamante ni mënoon naa fayu woyof gi nekkoon ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak tabe gi nga xamante ni moom la làmbo woon yooyu kon mën nañ na sax mooy suñu tomb waxtaan yi nga xamante ni moom lañ tomb ñaari tomb yu mag yooyu ñuy waxoon léegi mooy jikkoom ju tedd jeeg bindam bu rafet booba tamat incha allahu dinañ ci ñëw bu soobee yàlla bu fekkee ne waxtu wi may nañu ko bu ñëwee ngir njëkkanteeg waxtu wi rek ci tomb bu njëkk bi te mooy bind bi ko borom bi subhaanahu wa taala mu nekk bind boo xamante ni bu rafet la te taaru jekk lool boo xamante ni mosuñoo gis ku yàlla bindee nu mel noonu ndax xam ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy nekk ci biiru waajuram wu jigéen wu tedd woowu ba am ñaari weer ci la baayam bu tedd ba abdallah daldi wuy ji borom bi subhanahu wa taala biñ demee ba ci atum juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ci juddug Isa 570 di tolloog at moomu ñu arab yi doon wooyee atum ñay ya muy amul fiil bi mu jàllee ba am weer ak ñaar fukki fan ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di gane ci jamono mbokk yi waaye li ci gën a yéemu rek <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo jël ci moom rek da ngay gis ne kéemtaan moo ci nekk boo jëlee bi mu nekkee ndaw commencé ko bi muy nàmp ba bi bàyyee nàmp ya ca xew yépp yooyu yépp ay kéemtaan la waaye li ci gën a yéemu bi mu ganesee jamono màgg gu gaaw la ko borom bi subhaanahu wa taala defal gu gaaw goo xamante ni miinuñ ko woon xale di ko màggee te mooy lépp loo xamante ni xale moom lay màgg bu amee weer yonent bi sallallahu alayhi ci semaine la koy màgg lépp loo xamante ni xale baaxoo na koo màggee ci at yonent bi sallallahu alayhi ci weer la koy màgg looloo taxoon yonent bi bi amee fukki at ak juróom rek ci la nekk waxambaane wu dëgër woo xamante ni wu mat sëkk la ci xel mat sëkk ci bindum yaram waaye <clears throat> yàlla it defal ko taar boo xamante ni bu jéggee jéggi dayoo la ndax boo demee ci mbindom kilif gu mag gu ñuy tuddee imam day wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ñaari taar la ko defal da ko bindal ab taar wëlbatikuwaat bindaat bindaat beneen taar tegaat ko ci kaw dal di joxe tegtal ci ne keroog xaswatul ba xaswatu Uhud gaañee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba gaañ-gaañ bi xóot lool ci yaram bi métti lool bi mu demee ba gaañ bi wér fi gaañ-gaañ bi nekkoon fi liquide bi nekkoon boo koy xool day mel ni sax moo gën a rafet fi nga xamante ni dara mosu ko kii ndax la nekkoon ci biir mooy commencé di feeñ looloo taxoon boo daan ñëw ci këram boo na tëll la jàkkaarloog moom foofu nga sëgg ngir leer gi mag gi leer bu màgg gi ko suñ borom defaale woon boo ko daan xool day mel ni ab jant ngay jàkkaarloog moom sallallahu alayhi wa sallam looloo tax Seydina Omar ibnu Xataab radiallahu anhu ko ñu xam la ci saxaabam yi daana faral di def saa wu jógee këram ñëw di nuyu si yonant bi sallallahu alayhi wa bu na tëll bu ko jàkkaarloo li muy njëkk a wax mooy baytu zuhayri ba la zuhayri wayoon waxoon ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy law kunta min shay'in law kunta min shay'in siwa basarin kuntal badri bu fekkoon ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ngay nekk leneen wala bu fekkoon ne mën nan laa misaale leneen da nan la yaa gën a leer weer wu am fukki fan ak ñaar ku nekk xam ne weer wu demee ba am fukki fan ak ñaar euh, jaww ji day leer lool nee na nag lu muy leer leer bu fekkoon ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën nañ laa misaale leneen lu bokkut ak doomu aadama dañ naan la lan lay misaale kon mooy gën a leer loolu taar bu rafet la ko boroom bi subhaanahu wa taala bindaloon <coughs> looloo tax sayyidatuna Aïsa radiyallahu taala anha bu daan jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax waxam ju am solo dal di sëdd bayit yu am solo mooy waa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa axsanu minka lam talit nisaai xolexta mabraan min kulli aybin ka annaka xuliqta kama tasha dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu rafetee ne yow samay bët musu koo teg musu koo gis ku rafetee ne yow it jigéen musu koo jur suñ boroom dalaa bind nga dañ ci mboolem ayib yi amul lenn looy xool ci yonent bi sallallahu alayhi wa daldi na moom day rafet na waaye nangam bi déedéet xuliqta mabraan min kulli aybin dal di ne ko dafa mel ni yow bi lay yàlla di bind dangaa toogoon ne mu lay móol nga naan ko defaral lee ma defee ma nii defee ma nii defee ma nii ba mu àgg nga xam ne dangaa ni ni ni la neexee noon ni mu la neexee noonu la la suñu borom subhanahu wa taala bindee loolu nag taar bu rëy bi gisoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi ni ko yàlla binde woon rëyutoon lool rëyutoon tuuti wutoon gudd njoolutoon waaye gàttutoon it dafa nekkoon nit ku diggu doomu waaye li muy diggu doomu diggu doomu kum àndal moo lay sut kum toogal it loo loo loo loo kowe kowe mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay ay waggam mooy sut say wagg loolu suñ borom subhanahu wa taala moo ko defaloon yonentam bi dañu wax ne sax màggaay gi suñ borom subhanahu wa taala daxañoon ci yonent bi boo daan seen yonant bi muy ñëw moom kese da ngay jàpp mbooloo mooy ñëw nit ki lu njool njool bu ànd moom boo boo leen séenee yonent bi sallallahu alayhi ngay njëkk a séen te yonent bi sallallahu alayhi wasallam njoolutoon gàttutoon waaye njoolutoon boo daan xool jëba nga gis leer gi di ci daw bu nekk bu yaatu fees dell ak leer nga xam ne yéen yi te mooy kawar yi nekk ci kaw bët yi boo ko daan xool day mel ni benn rëdd benn rëdd dafa mel ni seen diggante amul teqale dafa mel ni ab rëdd rek boo xam ne dafa commencé ci bëtu ndeyjoor ba ci bët càmmooy bi am benn sidit bu ndaw bu nekk ci diggante bi gis kawar sikkiñ ba mu saq lool rafet lool suñ boroom moolee ay bëñam aku gémmiñam mu nekk gémmiñ gu taaru nekk it bëñ yu taaru ni mu tegale bëñ yi ndax dafa ay bëñam dafa sore woon moo tax bu naan bu daan wax wala muy reetaan da ngay gis ni leer gi di ballee ci diggante bëñ yi sallallahu alayhi wa sallam bi mi ngi koy wax ci jasbu bu fi asnabtisaam كالبرق أو حب الغمام ودحكه يجل الظلام كذرج في ظلم nee na bu daan reetaan moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ni ay melxat ay melax mooy génn ci diggante ba ñu ngir leeraay bi nee na sax barab lu mu lëndëm lëndëm bu fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ba muuñ da ngay gis barab bi ni mu leere ngir leeraay gi daan balloo ci gémmiñ ak bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bindee woon ko ay jikko yu rafet lool bokkoon na ci jikko yu rafet yooyu foo ko daan fekk day bég dara daawu ko yëngal du alale àdduna du njàqare àdduna lum am lum lum lum man di doon du feeñ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam njàqare lu mu tiis tiis boo ko séenee dangay jàpp ne ci tey la gën a bég waaye xéewal lu rëy rëy bu ñëwee ci moom boo ko séenee da ngay jàpp ne tey la gën a am jàqare loolu ay jikko la woon yu tedd yu borom bi subhanahu wa taala bindaale woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alali àdduna moom bugg ci woon dara bu daan doxantu ci mbeddi màkk yi wala ci àll màkk bi ku nekk xam na ne màkkatal mukarram dafa montagne ni mu nekkee ay montagne ñoo ko wër day dox ba si yàgg ci àll bi nga dégg benn montagne na ko assalaamu aleyka ya rasulallah assalaamu aleyka ya rasulallah jàmm yàlla na wàcc yow dal di ne ko yow de gis na la yaa ngi tumuranke lool ci àdduna sag col rafetut li ngay dundee neexul te ngaa wax borom bi mu soppi ñu wurus ak xaalis ñu ñu nekk ci sag moomeel <coughs> waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam leen di tontu mooy yarab bi suñ boroom doy na ma noonu it la daan demee bu ko boo ko fekkee it ci njàqare saxaab yi luñ mën a jaaxle jaaxle ndax ku nekk xam ne ne lislaam bi mu soog di jóg metti woon na lool tiisoon na lool waaye saa amee njàqare am tiis ba tàgguk seen saxo seen sago buñ ne jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa rek mboolem njàqare googu yëpp ak tiis googu yëpp dal di génn ci seen ci ñoom ngir ni mu leen den delloowaatee ci yàlla ak moom it image bi mu leen di wan ci boppam ameyoon teggin lool nga xam ne du dox mukk bay gest buy dox wan la ginnaaw ba nga woo ko day taxaw wëlbatiku jàkkaarloog yow buy xool ci suuf lay xool waaye lu muy xool ci suuf moo lay gën a xam li nekk ci kaw yow mi téen di xool ci kaw ni daan gisee ci kanamam noonu la daan gisee ci gannaawam ni daan gisee ndeyjooram noonu la daan gisee càmmooyam loolu melokaan la bu borom bi subhaanahu wa taala moo ñëw waadoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bariwoon lool li muy noppi bariwoon lool li muy noppi du wax mukk lu dul daa gis lu jar a lépp loo xamante ni jërto wax doo ci gis mu dugal ci mu mu wax ci mukk waaye lépp lu jar a wax donte bakkanam da koy laaj sax faw mu wax ko loolu ay jikko woon ak bind bu rafet bu yàlla bindaale woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bindam bi it li muy rafet rafet rafet ay jukkoom yem làmboo woon moo ko dàq looloo tax borom téere ba waxoon ne yonent bi salallaahu alayhi wa sallam bépp jukko ju baax boo koy askanale dang naan moo ko gën a def bépp jukko ju baax boo jël te mbindeef di ko melowoo dang naan jikko joojo yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo moo gën a def jikko joojo ci moom la gën a bari bu fekkee ne ak mat la danga naan yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a mat ñëpp bu fekkee ne taar la danga naan moo gën a taaru ñëpp bu fekkee na mbaax la danga naan moo gën a baax bu fekkee ne xam-xam la danga naan moo ëpp xam-xam ñëpp ndax ñépp ci moom lañuy roote te jàngul dara xamul sax ni ñu jànge xamul sax ni ñu bindee bu fekkee nag lewet la da nga naan it moo gën a lewet ñépp bu fekkee ne takkoog ndigal la te mooy jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi ba tey dangay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko gën a def ñëpp bu fekkee ne it la moo ko gën a def ñëpp bu fekkee ne am xel la it moo ko moo ëpp ñëpp xel teeyoon lool daawul jànni kenn wala muy gëdd kenn wa amal yatiima fala taqhar wa amal saahila fala tanhar kon ñu taxaw foofu ba yëkkati nodd gi insha allahu rabbi mbokk yi kon mi ngi noonu ñu wéyale ñaari ñaareelu xaaju waxtaan bi sallallahu alayhi wa ni bind bi rafete woon noonu la jikko ji rafete woon wala manees naa wax na sax jikko ji moo ko naan rafet bind bi ku ñu wax anas nee na liggéeyal naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam fukki at yu mat sëkk nekk ci këram ci kër gi laay fanaan ci laay yendu fa laay xëy lum lu bëgg maa ko koy defal fukki at waaye nee na mosumaa def dara ba tax mu wëlbati ko ne ma li nga def baaxul wala ma def dara mu na lu tax nga def ko wala ma bàyyi dara mu ne lu tax nga bàyyi ko su ma defee lu ma a def dama danaan ah lii de xanaa daa daa neex yàlla mu amee nii rek waaye nii dalaa ko bëggee woon bu ma bàyyee dara danaan ah, xanaa lii dala daa neexul yàlla mu am waaye bëggoon naa mu am loolu la doon jëflanteeg moom neen fukki at yu mat sëkk mënoon a jëlale lool ak jéggale ku ñu wax zeydun ibnu sana ab yahud la woon bu mag waaye bi muy jébbulu dafa waxoon ne balaa jébbulu dana xool bu baax xam ci diine ji muy dugg jan diine la te ku nekk xam na ne ci téere yi jiitu woon ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam war a mel yépp jàngale woon nañ ko ci téere yooyu moom jàngoon na téere yooyu ba xam melokaan yépp melokaan yooyu yépp nag mu gis ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba des benn te mooy ak lewetam mooy gën a yaatu ak meram yonant bi war a mujj jamono mu ne nag xaaral ma jaxasoog moom pour mën a xam loolu bu ma xamee loolu bu ma gisee ci moom loolu soog di mën a jébbalu ci moom mu ñëw ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ay bagages yi koy jaay bi mu ñëwee yonent bi ne ko ah tey damaa xaw a banque mu ne ko mën naa la koo lebal mu ne ko bu kañ mu ne ko ba ba mat semaine yonent bi ne ko kon waaw baax na dal di jël bagage yi bi mu ko jëlee semaine la ko waxoon mu am ñaari fan rek moom zaydun sax na saxna dal di dellu siwaat ne ko fay ma sama bor mu ne ko ah yow de daa mel ni euh, ay bis nga ma waxoon rek mu dal di jàpp ñaari baati mbubb yi poñe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ràpp di ko xoj ba mbubb mi di marqué ci baat bi na ko yéen waa kër Abdul Muttalib nii rek ngeen def da ngeen di leb ay bor du ngeen fay dal di jañax yonent bi sallallahu alayhi bàyyi ko bi mu defee loolu Omar dal di tëb dal ne yonent bi bàyyi ma tàqale bopp bi ak yaram bi mu ne déedéet bàyyi ko yow kay li nga waroon wax Omar mooy danga ma waroon wax man yonant bi ne ma del fay bor te moom nga wax ko muy rafet mu rafetal ni mu fayoo ko bor dal di wax Omar dal di ne ko demal sa magasin ba nga nattal ko ba pare dolli ko ci jox ko mu dem loolu ci kilifa gu toll ni yonent bi sallallahu alayhi ñu fekk la ci biir njaboot poñale def la noonu ba pare nga fayee kala def euh, lu rafet njekk lu rafet loolu ba tey boo demee ci benn keroog biñ demee Taif na day seeti ay nijaayam bi mu demee ñu boole ko xaj yeeg xale yara di koy ak dof yi ñu koy sànni xeer ba tànk yi dagg jibril dafa wàcc ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa borom de moo ma yónni dafa wax ne dëkk bii de ñaari montagne ñoo ko séq boo ma joxee ndig ndigal rek ma boole ñaari montagne ci seen kaw ñoom ñëpp faatu waaye li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy lam ab ans nii la aanan yàlla wàcciwu fi pour may ñaanal nit ñi aw ay dafa ma fee wàccee pour may gindi nit ñi dal di ñaan yëkkati loxo yi na yow suñ boroom gindil sama nit ñoom ñàkk xam rek moo tax ñuy ñu def ma nii kon ku daan jéggale la ci koko beneen bi am na benn guerre bu ñu tuddee xaswatu xatfaan yonent bi sallallahu alayhi bi fay dem mook saxaaba yi dañoo tawte taw bu metti la woon ñu tawte bi demee ba taw bi sébét yonent bi dem ci benn ruq benn benn àll ci diggante ay garab mu summi yére ye booba yére booba ak col moom yombutoon comme nii genn col la yoroon mu summi col ga di ko weer ngir xaar mu ow bi mu toogee ci ron garab gi di xaar mu wow rek am benn waay bu ñu tuddee donc sóor daldi dina ñaxeet ci àll bi ñëw yor jaasi ñëw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal ne ko man yam naaka min nil yow ma kan moo mën a dox sama digganteeg yow tey ji yonent bi ne ko allah xanaa yàlla allah baatu allah gi rek tiital ko ba jaasi jim yoroon dal di rot yonent bi sallallahu jël ji jaasi jim yoroon daldi di ne ko yow tamit kan moo mën a dox sama digganteeg yow tey mu ne ko kun xayra aaqisin yow daal maa ngi lay ñaan nga bañ a yam ak man te nga jéggal ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di ko jéggal moom it foofa la jaare woon dal di jébbulu dugg ci lislaam nooyoon ay wàlla lool nga xam ne saxaaba yi lu nekk lañ ko daan def lu nekk it lañ ko daan wax muy déglu seeni xalaat moo tax saxaaba yi miinoon ko lool ba mu demoon leen ba gënal leen ñépp ku mel ni Abu Hurayra moom mi nga xamante ni ci xaswatu Xaybar la jébbalu te bokk ci ñi nga xamante ni liñ nettali ci ay xadis ñoo ko ëppale moom ci ñooñu la bokk moom bi mu jébbaloo dugg ci lislaam rek daa bàyyi léppam di topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi ak bëccëg suba ak ngoon ngir yonent bi sallallahu neex gi nga xamante ni noonu la neexoon a àndal beneen bi ci desit woyofoon lool ba foo ko takk mu weesu ko sayyidatna Aysa laaj nan ko ne ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom biir këram nu mu fa daan dundee mu ne yonent bi de bu jugee jàkk ja bu ñëwee ci liggéey bi lay lay bokk bu ñuy ratt gàtt yi day ratt bu amee lu xottee ko moo koy ñaw bu amee kër gi sax fu euh, sàkket woo xamante ni xaw naa wala xayma ko fi xaw a xët moom moo koy defaraatal boppam ba defoon naa bokkoon na ci ak woyefam yenn saa yi day dem ba di kursu ak ak njabootam sayyidina Aysa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana rawante ak moom lu bari loolu lépp nag wane ak woyof ak wàcc boppam moo ko yóbbee woon mas nay dox ci àll bi ànd ak saxaabaam ñi dem ba bëgg a benn gàtt kenn ki daldi na man maa koy rendi kenn ki ne maa koy fees yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi na kon maay wuti ji mat kon maay wuti ji mat gis nga kon ak fiko ko borom bi subhanahu wa taala tegoon ci daraja terewul mënoon wàcc lépp mënoon wàccee boppam bu baax ba mën a tolloo ak ñépp da daan diisoog lu bari ay saxaabam ndax suñ borom subhanahu wa taala moo ko digaloon wa shaawirhum fil amr na ñoom moo tax da daan diisoog saxaaba yi ci lu baree baree baree bare ba tax sax yenn saa yi day war ci daaba togg leen te mooy waral leen ci ginnaaw abu hurayra nee na mas naay taxan man ci àll bi man abu hurayra yonentu bi sallallahu alayhi wasallam romb ma war mbaam ma dal dina ko xaar ma yóbbaale ma waaye booba bagaas yi ma yoroon moo tax mënu maa yéeg ci kaw saa su ma jàppandoo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour yéeg ñun ñaar ñëpp ànd daanu yonent bi yéegaat di ba xaar may yéegaat jàppandu ci woon ñu àndaat daanu ba muy ñetti yoon ba ni ma yéegee te taxul te moo nekkoon ci gën ci mbindeef yi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam Muaas na Jabal gis ngeen xadis yi mu solo yu bëri yonent bi salaa salaam daa war ci daaba mu war ci ginnaaw mu koy nettali yu bëree bëri te da daan doyloo li ko saxaaba yi wax ci li gën a bëri mooy ñi ko wëroon yenn saa yi sax day def dara ñu corriger ko mu nangu loolu benn misaal rek lay joxe ci xaswatu badr keroog bi ñu agsi bi ñu demee badr badar ay teen la ay dex ay ndox yu moo moo fa taa yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fa jiitu mook saxaabam ñoo fa jiitu kuréelu yéefar bi mu ñëwee nag dafa wàcc ci kanam ndox mi nga xam ne ndox mi moo nekk seen kanam yonent bi wàcc fii bi mu installé bagage bi pare ci la ku ñu tuddee Habab ibn Munzir ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa rasulallah araayta haadal manzil ndax fii nga jàpp ne fi lañu war a wàcc wala yàllaa la fi digal moo moo la wax nga ñu wàcc fi a ah, dal di ne ko bu fekkee ne yàllaa la wax ñu wàcc fi de kon moom kenn du ko weesu fii la ñu wàcc wala yow yaa jàpp ne fii mooy wàccukaay bi ba tax nga wàcc fi yonent bi sallallahu alayhi ne ko yàlla diglu ma ko de man ci boppam maa jàpp ne fii la war a wàcc ñu wàcc fi mu ne ko waaw est-ce que gisoo ne bu ñu wàccoon ci kanam ndox mi ndox mi féetu ñu ginnaaw nga xam ne yéefar bu ñëwee bu maree duñ mën a naan si ñu fatt yeneen dex yépp est-ce que du gën mu ne ko aha kay ñu dal di jëlaat seen bagage dem ca kanam wàcc ci gannaaw ndox mi loolu da daan doyloo kon xalaati saxaab yi lu bëree bari beneen bi it ku ñu tuddee sawaat ibnu xasiya sawaat ibnu xasiya benn saxaabi la woon keroog bi ñu sàppee ci xaswatu badar di xaar yéefar yi yonent bi daa dox ci ci kanam saxaaba yi di defar sàpp si boobu mi ngi yor ab xejam moom yonent bi mi ngi yor am ab xej bi mu agsee ba ci sawaat ibnu xasiya dal di ko laalale xej bi far mu xaw a laal biir bi ne ko duggal ci sàpp si da ngaa xaw a génn sàpp si bi mu laalalee xej bi sawaat rek sawaat dal di fettax dal di jóg dal di ko jox ma moo fayee ko jox ma ma fayu yow yàlla yónni la nga war a yaram ñëpp war a dimbali ñëpp waxuma la dara waaye xoolal rek fi ñu sàppiloo ñi ngi ni jàkkaarloog yéefar ñu war ñoo rey beneen bi ci des it yow ngay ñëw di ma dóoraat sa xej bi jox ma ma fayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wokk mbubbam ba biir bi di feeñ pour mu fayee ko bi mu wokkee mbubb mi ba biir bi feeñ rek Sawaat ibnu Xasiya dal di fóon biir bi fóon biiru yonent bi sallallahu alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal ko laaj waaw li nga def loo ci jublu moo daal di na gis nga li teew xawma ndax ci xare bii laay faatoo wala déet damaa bëgg bu ma faatoo ci xare bi ma xam ne sama yaram lim mujj laal ci àdduna mooy sa yaram loolu moo ma yóbbee ci li ma def mais li ci am solo rek mooy ku toll ni kilifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci biir ak njabootam ñim yilif wër ko benn njabootam benn taalibam de mu def loolu mu ne ko jox ma ma fayu mu nangoo aj yéram ba biiram di feeñ loolu mbokk yi ak woyof munu ko weesu loolu nag boo koy jàngat ci euh, jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam da gis na daa bëri lool ba tey it wa woyofam yóbboon ko daana fow ak lu bëri ak saxaabaam daana ñoom biñ ci njëkk jox mooy Seydina Ali karamallahu wajha moom bi nga xam ne mbokkam la woon gorom la woon yonent bi daana kaf ak moom lu bari ba am na bis mu fekk ko ca jàkk ja muy nelaw mais fi mu tëdd nag ci suuf la fekk Seydina Ali di nelaw mook Ammar ibn Yasir Seydina Ali xalanku ba yaram bi takk suuf répp yonent bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy da ko wéq ak tànkam dal dina ko xum yaa aba turaab yow bàyyi suuf jógal waay keroog nag la wax wax ju am ju daw yaram dal di ne maa ngi leen di nettali ñaari nit ñoo xamante ni ñoo gën a texee di ci nit ñi ñu ne ko ñaar ñooñu mooy kan mu ne mooy ki rayoon giléem ak yén euh, ak ki nga xamante ni moo nara a rey Seydina Ali karamallahu wacca mbokk ku mel mu mel ni waxtu wi dab nañu ñu ngi taxalu foofu di ñaan borom bi subhanahu wa mu jéggal ñu jéggal leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu للمصطفى